c'est parce que Malick gàkku moo jël initiative ñëw seet si ma Malick Gakou mooy initiateur u mouvement boobu et wax naa ko ci mbooloo mi ma ne leen bett na ma lool que muy Malick gàkku mu mën a jël initiative wu ñëw di soutenir candidature Augustin Senghor comme candidat du du Sénégal euh, pour le de président de la CAF. parce que ñoom ñaar ñoo doon xëccoo. fédération en 2009 ou 10. te booba man Souleymane Ndéné Ndiaye su ma neexee su ma yeboo ma ne man maa nekkoon presque euh, soutien majeur u Augustin Senghor. parce que booba dafa amoon politique bu ci rax Malick Gakou AFP la bokk bu ñu ne président euh, militant AFP jël na fédération. dañ koy politiser man ak ministre des sports toog sama bureau je vais le dire la télévision mmh. parce que ah c'est des faits mmh. Mmh. ministre des sport toog sama bureau il ma listu président yi nga xam ne yëpp ils étaient réticents ma jël sama téléphone woo leen benn par benn ne leen su ngeen wotelee Malick Gakou le l'état va se sortir du, sport parce que dañ bëgg a politiser sport bi te ñun loolu duñ ko nangu alors que Augustin Senghor amul couleur politique kenn xamalu ko parti politique kenn xamalu ko couleur politique même si est maire de Gorée ma leen kon nag suñu recommandation mooy ngeen votel Augustin Senghor et j'ai suivi les événements du début à la fin et ça Malick Gakou le sait je lui ai dit ma ne donc vraiment maa ngi saluer sa grandeur d'esprit parce que bu doon keneen la démarche bi nga dox nii doo ko dox mu ne ma Souleymane loolu suñu gannaaw la nekk Augustin nekk na président ba rempiler gagnewaat élection nekkaat président mhm. kon nekkatul président US Gorée wala président fédération sénégalaise de football dafa nekk candidat wu Sénégal à un poste africain mhm. kon nag ñun suñu devoir mooy kenn ku nekk ci ñun am na lu mu mën am na fu mu mën a euh, dugal kàddoom be ñu déglu ko donc dañu war a dajaloo ñun jàppale Augustin Senghor et j'ai salué ce geste-là j'ai salué cette initiative la looloo waral ma bokk ca ña toogoon ca barab ba te fàttali naa ko fa en saluant non seulement l'initiative mais la grandeur daam de Malick Gakou lan moo fas yéene nekk seen taxawaay yéen ñooñu boo leen dajee lan ngeen ko mën a apporter pour mu alors kenn ku nekk ci ñun am na lu mu xam ci Afrique man déjà j'ai dem naa lome rencontré naa président Euh, euh, togolaise de football euh, Bénin le président béninoise